jërëjëf billaay ndeysaan li ngeen nga bur jaaxle dégg naa dëgg waaye aw ma choix ndax xam naa li muy laaj bi yaa gisee ko wax waaye déggal li ko président wax laa ilaha illallah président nee na ko samay doomi ëllëg lay wutal ndey ju baax tubaari kàlla macha allah président yàgg ngaa way nag mu neex yàgg ngaa diyoo mu neex waaye la lu mujj ñëw ëpp doole bii bii bii ah bii nag ànd nag ay mbiram diyo bii amades mi yàgg si génn léegi ci 19h bàyyi faal yi yeewu daj ci ah tubarkàlla macha allah yëg moom dara ñu ngi lay ñaanal lépp di gën bàyyi yàlla guddal sa fan ci wér say cër sunub saga mënoo di dëkkee def lu baax te duñu ko wax ku bëgg ci dara gi dara da def ki dara gi dara ku def ki dara gi dara am ci dara gi dara ku deful ci dara gi dara doo am ci dara gi dara ku bëgg loo génnee ñu coow ko da ngay fexe luy génnee muy baax nit ñi ay bëti garmi lañu yor ak i noppi garmi bu ñu ko déggee mu baax vivacité rapidité prib dip mbir yi gaaw tegu ci yoon ñu wax a la ca war waaye nag bu mel ne leen rek ñoo moom suñuy làmmiñ nag moom suñu bopp ñu jàpp suñu jàmbur waaye soo nag salaat fexe nga ba loo génnee yow képp day baax waaye loo bokk ak say nawle it mu gën a baax yàlla na sa jàpp yàgg félicitation et félicitation ak ñi nga ko àndal sa rakk yu baax yooyu nga ko àndal ñu góor nit ñu jigéen ñi ak équipe bi ci jàpp ñëpp félicitation à vous tous yàlla sa jàmm yàgg on est trop content et trop Ah, xam naa ni journaliste yi tàmm ngeen ay nettali fi amoo leen loolu fi nettali bool sax buñ delloo ngeen di vidéo bu toogee gën leen gomis gomis fekkee faj ko ci ñibbi moo ana fu ana fu ana fu eh, ana fu waaw ana fu fu laa gisoon lool fu waaw fu laa gisoon. Eh, eh, waaye nag yéen a mën a jël nag laay laa yéen a mën a jël <laughs> di jël ba di jël ci ak delloo bool dama tibbal ma yóbbu bool bi ngeen ne da ngeen di jël bool bi. Ah, waaw